Je euh, suis ko ak euh, euh, observateur du groupe Futur Média Nous na ci walu politique publique le chemin obscur du projet le yéen kaay bi fësal ci bu la ci mu la continuité du PAP PAP 3 bu bu président son excellence Macky Sall ñom jogé nañ ci PAP 2 et nous ñu ngi won ci PAP 3 Nous nañu nak ci yéen 3. bi que

loolu musiba naaru layla entretien avec Ibrahim euh, Amidou Dem. mom fu nekati sax juge dem gëj na ko dégg. mi mi euh, ah borom éthique borom éthique avocat CPI waaw borom éthique. Euh, le juge Dem secoue donc la magistrature il faut éviter de le gouvernement des juges la wax le président dispose donc d'un pouvoir discrétionnaire pour nommer et révoquer donc les autorités administratives et militaires mais pas pour les magistrats yenekay bi mom mo ci euh, daal di ci observateur yenekay alors lenen lamu mu ci dolli mu di témoignage l'équation du remariage des veuves mon fils menacé donc mon nouvel époux avec donc une machette loolu yenekay bi observateur xam naa ne euh, doy c'est un enfant mal éduqué tout simplement. ah c'est un enfant mal éduqué. ni violent c'est un enfant mal éduqué. mal éduqué. waay mal éduqué d'accord ñu sommes ci éco yéenekaay. il a tort son vieux là sommes dans la chambre administrative de la cour suprême euh, un, immeuble de Eliman Lam au cœur donc donc contentieux les éco ils ont donc attaqué un arrêt un arrêté donc du sous-préfet de Dakar Plateau voulant donc euh, les expulser de l'immeuble 6 donc à l'avenue donc la Cour suprême donc se penche jeudi prochain euh, sur la requête donc des commerçants euh, mu euh, expression donc claire de son option panafricaniste et souveraine souverainiste yene kay bi mo ci ci euh, parti bi di passé dajé ak bureau politique national les échos d'Al di koy le parti bi am ci ku ci yeneen partenaire politique ci biti les échos yene kay mo ci dal di wolf Quotidien yene kay ginnaw

Euh, Phoenix il est fort possible que le fournisseur d'électricité ait donc envoyé une charge trop importante nous ne demanderons pas à Diomaye et Sonko un retour d'ascenseur waaw Yenekaay bi moo ci ñëw ci Walf Quotidien alors nous l'avons di mastawaat baax baax Libération Yenekaay ci wàllu koppar la ñëw ci euh, ay milliards yu bari sax subvention versée donc par l'agence de la CMU aux organisations mutualistes pour donc des prestations de santé entre 2017 et 2019 monnaie 5,204 5 milliards 224 millions de francs CFA euh, intrans intraçable mu euh, libération la cour des comptes c'est écart donc important appelle donc à un audit euh, foncier approfondi pour s'assurer donc de la réception et de la bonne utilisation des montants versés l'agent donc a été donc enterré par décret durant la transition par le président sortant le constat donc est que l'octroi donc des subventions aux mutuelles n'est ni transparent ni équitable, 150 millions de francs CFA présumés donc versés aux unions départementales donc de la région de Louga introuvable Madame Ken ah, les vérificateurs dénoncent euh, une tendance à détourner donc des subventions de leur destination d'origine euh, ci scandale ci walu foncier ci euh gi euh, agent yu euh, waron dem ci euh, couverture yëm ci walu couverture maladie universelle koppar ga fa mu waroon dem danaka demu fa libération moment mo ci mom mo ci dal di ñew joggé ci libération dem ci bés bi le jour yene kay enquête nouvelle ville de Thiès pire que Mbourkat ils ont donc raclé l'assiette Isidore Alexandre Sen maa ngi la nuyu donc c'est le correspondant de ITV euh, à Thiès, euh, Isidore Alexandre Sen et donc euh, Ouli Matafal Mon fi nekkal yéenekaay le jour à Thiès alors il dit l'homme aux 13 hectares donc qui avait suscité la colère donc de Jomai bés le jour 13 hectares la liste donc des auteurs personnalités à hectare Pape Diop Youssou Ndour Cheikh Omar An Arona ak Daouda Dia ak Kalidou euh, Antoine Djom. Hein, l'œuvre donc de la direction générale de l'urbanisme et de la direction générale des domaines Mbour expansion les parcelles donc des délégués de quartier des communicateurs traditionnels donc de la presse et de la société civile religieux maki un distributeur automatique de parcelles. un distributeur automatique. bismillah bismillah si bi dama waaw na jar gaaw da jëndi ko tej tej tej tej tej tej tej tej tej distributeur automatique tej tej tej tej tej tej tej ma ngi ma ngi sta fumier mëx kat suuf la amoon na ko pas sax bu ñu joxoon l'alliance pour la république day mëx suuf Augustin Tine mëx sal mëx kat suuf la mëx kat suuf ah muy woo waa benn waa APR di leen di leen séddale ay parcelles c'est un fumier mëx sal s'il vous plaît laissez le président dama ni mëx kat suuf la alors mëx suuf ça c'est grave ça Euh, alors ñëw nañ ci euh, euh, turbine yéenekaay ñëw na ci walu dundugu cher gi ñëw na également ci walu loyer mu daal di samp de vrais problèmes qui attendent donc de vraies solutions yéenekaay bi turbine moom mo ci daal di ñëw ci li ñuy xaaree ki nga xamné modi. moo di njiitu président Bassirou Diomaye Diakhar Faye Direct News yéenekaay ñëw na ci rapport yi nga xamné euh, publier nañ ko mu jëm ci wàllu OFNAC mu jëm ci walu contact euh, mu jëm ci walu euh, Cour des comptes son nom n'apparaît pourtant pas dans les rapports publiés fësal nataalu ki fi nekkoon premier ministre Amadou Ba candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar euh mom lañu fësal fi ci direct ci niw neena hein. ak lu coow li tous les rapports ak lu coow li mën bari mom Amadou Ba turam feeñut ci rapport yi mudi of nak mudi Cour des comptes képp kuy sàcc waaw ci état

Non, vous faites que vous ne vous rappelez pas. Expert en moi. Fonction vie mouillon. Surtout le monde de mon petit rapport. Il n'est pas un expert. C'est un expert de voleur. Sac. Sac. Quand on lit, il y a un bon jour, il y a 30 millions par verre. Il y a 30 mois, 30 années. Il n'a combien 3 milliards. Hein Oui. 30 ans, 30 30 30 kilos, 30 millions par verre faites-moi la différence j'ai donné 30 millions par verre à Amoudoua. Ba 30 ans il a que 6 milliards comment tu es un un d'accord milliardaire. d'accord bah il ma jeexal rue de presse voilà benenbi bi euh, le soleil yéene Momo moom moo Tibi fësal ci alors le président de la république du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, le président avocat de la cause palestinienne. loolu yéene bu

Euh, fi nga xam ne moom moo di euh, sommet donc de l'OCI euh, à Banjul bi ñu doon amal ñeenti fan jàpp juróom ci mois de mai atum 2024. président de la république nag yéenekaay yu fësal na ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmane ko également si waa Palestine ci xëy na taxawaay bi nga xam ne war nañ ko taxaw ci dëkk bu ni mel yéenekaay bi fësal ne le président avocat donc de la cause palestinienne ci le soleil yéenekaay remobilisation de mhm. Benno Bok Yakar. ko ko le euh, quotidien yéen un ci remobilisation de Benno Bokyakar. tout à fait petit pas de Maki pour un retour après le Dakar il a envoyé une délégation à Kafin, président de la République euh, son message aux militants nous devons rester soudés et reprendre le travail donc à la base tout à fait tout à fait Wow, oui waaw yéenekaay bi ñëw na ci le quotidien yéenekaay. Euh, waaw waaw. Ah oui. Euh, je peux vous dire mais mais y a Amadou Ba kii non attendez hein? attendez waaw attendez. fan ngeen bëgg ñu jëkke ci le soleil wala. nañ dem ci le soleil non soleil mom. waaw ki fi nekk moo tax ci wax parce que limi wax ni da bëgg ko fa téye te mënut a nekk. Bab Alé jël na ki, jël na jël na jël na jël na fonction. defagul passation de service. Bab Alé waaw def na ko am defu ko. Hmm. kon ma wax ci tool yooyu pas encore vu alors ba tey boobu bii duma ci wax. parce que Kañaka mattoon euh, ab Diouf matt ci mu soleil bii matt Ablaye Wade matt Macky Sall dañoo dara matt man sama yet laay taxaw en tant que sentinelle. Mhm. ni kii li muy def na ko bàyyi. lu ñuy suñuy suñuy activité na ko teg fële dama ni te moom na préparer en conséquence ñii moom arrangé muñ muy soleil muy muy muy RTS. RTS temps moo koy moo koy toj de. dama ni.

mais est-ce qu'il n'a pas déserté. dama ni ak lu mën a am nañ ko remplacer. topp ko dégg naa daw na. génn nañu ay kër boo xam ne fi fa la dëkkoon daaw génn kër daw ak yu bagaasam ba ci fa ay xar loolu gis naa gars yi génn ko xaw ma dëgg la xamul dëgg mais bu fekkee loolu am na nañ ko remplacer immédiatement ak keneen waaye bu ñu koy remplacer tam ça doit être sélectif ça ne peut pas n'importe qui ku nekk sax Pastef wala mu nekk feneen mais nit un homme crédible mhm. jox ko journal bi pour mu dimbali réew mi aidez-nous à vous aider c'est ça RTS moom Pape Alé lañ fay xaar te wóor na ma wóor na yàlla ni ma ko xamee un homme crédible kenn mënu ko imposer def na boole ñëpp waaye journaux yi daal sama waay. nañ ko teg fële ñaari journal yi RTS ñaari organes yi RTS ak Soleil du ñu arrange suñuy ennemis lañu parce que nit boo ko dul wax lu bon li muy def du ma du mën a corriger te duñu ko wax mukk dama ni duñ ko wax mukk suñu image nag ma dama ni mon fait ma beauté ñii. mu ñu def sama image te ku ku yàq image su état bi yàq nga sama image man ku yàq image nation bi yàq sama image ku yàq image keneen ak keneen yàq sama image parce que je me comme un sénégalais un républicain un citoyen et un jàmbaar. d'accord kon seen napp seetlu samay journaux yu mel nii ñu leen bàyyi ñu émerger